salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi salaamaaleykum chers amis internautes bienvenue sur Fer TV la chaine du bien-être comme ni ma koy faral di waxee euh, couloir d'acteur mode corps mode ramadan tey nag ñoom le plaisir le contentement invité benn ndaanaan un talent incontourné incontestable donc ni ma koy faral di waxee rek mu nekk Alaaji Dërëm Gaajo Dërëm maa ngi lay ziar. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Cisco euh, maa ngi lay nuyu du nuyu waa àdduna bi du nuyu waa Sénégal euh, di sant yàlla julli ci yonent bi sant samay ñaari jur di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana ci barke alxuraanul karim di nuyu waa Sénégal di nuyu fansi bu baax a baax ah di sant sama sëriñ sama sang sama wasila sama lépp muy sëriñ Medoune Seye borom tawféex jàmbaaru lislaam ji di ñaanal yàlla yàlla guddal fanam wéral cëram ci barki alxuraan di nuyu soppe yeeg fan si di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaan yàlla yàlla wàcc jàmm ci réew mi. allahumma amin naka koor gi. sant yàlla commencé nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi ciy génn ci alhamdulillahi rabbil alamin di ñaan yàlla mbooleem luñ ci def ci lu baax. yal na nu ko yàlla defal ci ay yiw yu baree baree baree bare yàlla jéggal ñu ci sunuy bàkkaar ci barki Seyduna Muhammad allahumma amin ñaan yi am na solo waaw dërëm li nekk émission bi tudd couloir d'acteur euh, ñu baaxoo di invité acteurs yi comédiens yi ñu mel ni yéen pour xool mën a am beneen gis-gis ak beneen jàngat ci comédiens yi waaw ñu bëggoon rek nga may ñi nga xamante ni ki nii ñooy sénégalais yi ñu lay seetaan nga wax leen tuuti rek ci kan mooy dërëm ci lu gàtt. waaw dërëm gaajo nag <coughs> benn doomu aadama la rek bu bu bu xeebu di donga daara euh, di taalibe borom tawféex bëgg sëriñ tuuba lool bëgg Seydina Mohamed lool ma nekk ci aar bi euh, bi ma ci duggee léegi nag yàgg na yàggul. Euh, yàlla def it wax dëgg yàlla fii ma ci toll tey dama koy sante yàlla bu baax a baax a baax a baax ak public bii nga xamante ne nii tey ñoo ñuy seetaan di ñu safoo di ñu bégee ba tey ku ñu mun a dégg rek gannaaw yàlla tey public bii la kon public bi laay delloo lépp di leen santaat bu baax bu baax a baax a baax a baax di la wax nag dërëm gaajo euh, euh, aar bii ma ne wax dëgg yàlla ko lu nekk daj naa ko ci aar bii ma ne lu nekk rek daj naa ko ci lu métti waaye nag sant yàlla ndax tey jii sunu boroom dimbali na ma ba tey jii wax dëgg yàlla am na loo xamante ni nii aar bi defal na ma ko tey. kon mën nañ ne dërëm mi ngi ngi fayeeku bu baax ci aar bi. noo fayeeku ma bu baax ci aar bi de. kon aar bi xanaa fayul. ah bu aar bi fayul woon banaa aar bi ñu ne bu fayul woon banaa bu yàgg. aar mu ngi fay mais Cisco dama lay wax benn affaire artistes yi dañoo desee am jàppale aar li mu mën moo ngi koy def xoolal mag ñi fi jaaroon ci aar def lu nekk ci aar bi dund ci aar bi lu ne tey jii artiste bu feebar dangay tàllal sa loxo ñaan pour ñu faj la est que loolu c'est normal. mais xanaa arco yi ñuy digg association yeeg yooyu noonu. muy mais arco yi bu ñu ko taxawalee it état da cee war a mun a ñëw jàpp arko yi ñoo fa nekk di génn seen xaalis di ca def mais pas état ni mu war a jàppale artistes yi dëgg wax dëgg yàlla defu ko. mais est-ce que yéen wu ngeen à tel point que di ngeen mën dem di saisir les instances de la république euh, comme ministère de la euh, de la culture. artistes yi def nañ ko ba dee. dama lay wax benn affaire artistes yi li ngay wax ni artistes yi def nañ ko ba dee. mais Sénégal dañoo desee jox cër artiste dañoo desee jox cër artiste. ci boppam Sénégal wala nguur gi. non waa bu ma bu ma nee Sénégal kay nguur gee tax may wax ñun tey jii tey Cisco dërëm gaaj bu ñu nee feebar na tey yàlla tere yàlla yàlla bu ko kenn dégg sax xam nga ñan ñoo koy jàppale du état de ay fan fansam ñoo koy jàppalee tey. fan yi ngay dégg ñoom ñooy génne seen xaalis moo tax ñun lu nu am rek war nañ koo santé suñu fans yi parce que bu ñu feebaree ñoom la ñuy gis bu ñu amee problème ñoom la ñuy gis. ñu di ketal ñu ñu ñuy ketal. comprendre nga boo seetlu boo gisee par exemple say artiste toog ci télé di wax di tudd diw di wax ci moom lu baax di wax ci lu moom lu baax dafa fekk mu defal ko lu baax xam nga fii moom koo fi defalul lu baax doo doo doo ko tudd di nga toog ba dégg ñu ne état defal na lii artiste wala état defal na lii artiste déedéet doo ko dégg mukk ay ma sàmm ngay tudd ma dembaak ma ma faatoog ma ma ma ibra rek ngay dégg. dërëm gaaju mu ngay toog mu toog ci télé waa maa ngi sant Cheikh Lo Espagne sama xarit bu baax boobu. seen dóor yi rek dóor yi këy defal na ma lu ne. ñooñu ñooñuy jàppale artistes yi léegi dama lay wax benn affaire Sénégal mus ngaa dox ba romb ba romb ñu ne immeuble bi artiste ko tabax. ci acteur comédien yi quoi. wa acteur comédien yi ci Sénégal laa la wax dama ba xam yow ci sa bopp waxuma amul de man man ji ki tegugum ba xam mus ngaa dox ñu ne la immeuble bi. waxuma la étage bi immeuble bii artiste a tabax yow mus nga ko gis. gisuma ko mais est-ce que tamit est-ce que tamit artistes yi peut-être li ñuy produire ak li ñuy joxe mën na leen may ñu mën a tabax immeuble. moo ngoog looloo tax jàppale war a dugg nag xam nga loolu xam nga yow ñëw nga ba yow nag wax nga waat sa bopp loolu laa lay wax na la aar bi maanaam na mu war a demee demee wut noonu léegi nag yow yaay mun a ñëw jàppale artiste bi. léegi jàppale artiste bi comment nguur gi lan la war a def. ah selon yow. nguur gi nguur gi li mu war a def mooy mu financer artistes ñu def ay téléfilm di def ay séries yu neex comme ni ko yeneen réew yi di defee comprendre tey jii ñu euh, ñu ne la tey benn benn tubaab mënoon na ñëw ne la yow ñaata produire nga def nga wax ko li nga def lépp ci ay produits mu ne la ñaata lan ak lan nga investir nga ne ko terrain sax amaguma ko. moom loolu problème la dana loolu mënul ne la lay wax parce que ñoom artiste dañ koo jox cër benn cassette wala deux cassettes boo ko génnee ci yoon millionnaire nga war a doon fii nag mun ngaa génn junney cassette junney cassette terrain buy jar 3 millions doo ko am kon dañoo desee jox artiste yi gëdd. léegi solution bi lan la selon toi. solution bi mooy état di jàppale artistes yi. milliards yi ñuy génne di ko di ko di ko di ko yàq di ko dugal feneen foo xamante ne du farata nañ ko financer artistes yi ñu liggéey artistes yi mun a feebar faj seen bopp artistes yi mun a dawal ci ay oto yu baax artistes yi mun a samp ay kër yu baax comprendre loolu état moo ko war a jàppale parce que tëdduñu di nelaw du ñu jóg di daan suñu doole te li ñuy def araamul ñoo ngi toog di bégal doomu aadama yi di wax ci nit lu baax comprendre mais état na jàppale artistes yi ñun ñun danoo desee am jàppale barki alxuraan genre Serigne Medoune Seye Guèye fi nekk di génn ci seen poche di def ci seen art di def ci artiste di samp ay entreprise di woo artiste di leen liggéeyloo di leen jox xaalis moo tax genre am gii ñuy ñaan ñu am ci yu bëri ndax artiste yi mun a avance daw feex nga fi gis muy jël oto di may artiste di jël ay terrain di may artiste da ngay dégg état woo ay artiste naan leen ñëw leen jël terrain wala ñëw leen jël oto doo ko dégg. dëgg la kon bu ñu amoon ay juróomi juróomi juróomi tawféex moom artistes yi dootuñ jooy ndax euh, wax dëgg yàlla ñu koy remercier di ko saluer de passage ndax bëri na ñu koy gërëm ndax loolu noonu ñu ah, jàppale artistes yi vraiment léegi dërëm ñu ñëw ci carrière dërëm sa carrière parce que am na sénégalais yoo xam ne peut-être dañ jékki-jékki rek gis dërëm ci écran bi dërëm fu mu jaar ak ndax amoon na ay métit wala jafe-jafe ak li ñuy dégg yëpp affaire clan yi am ci milieu beeg détail yooyu noonu ndax dërëm dund na loolu. ah dund naa ko kay man dund naa lu ne ci aar bii barki Seydouna Mohamed xeex nañ ma façon xeex bu ne ci aar. déet waay ah waaw aar loolu munu cee ñàkk. ñan ñoo doon xeex dërëm. non doo tudd tur aar munul ñàkk ci aar de ak ku mu mën a doon laa la wax ci aar. munoo cee dund dund dund ba dee te doo gis xeex. loolu mënul ne. léegi xeex bi pour lal la ak nan lay demee. mais Cisco <laughs> xeex bi xam nga ñun moom danoo desee gëm yàlla xeex bi lenn rek la dërëm gaajoo ngi dem dërëm gaajo warul dem man maa war a mun a dem di xeex dërëm gaajo dërëm gaajo am na lii wala Cisco am na lii lii mu am nii man maa ko yelloo waaw lool la rek xeexante xeexante moom waxuma la aar sax mais lu dul aar sax xeexante am na ci. lu nekk nag lu métti loo daj ci lu lu lu loo xam rek man daj naa ko ci aar man lu ne waxal nan ma ko ci aar bi. waaw léegi d'accord. nanu ma man sosal nanu ma <laughs> waxal nan ma lu bon lu nekk ci biir aar bi dërëm gaajoo def lii dërëm gaajoo wax lii te bëri na fii Sénégal fii ñuy taxaw di ñuy taxaw di wax ci man lu bon barki alxuraanul kërim jàppale naa leen waaw ah, day am. fayuñ la daal liñ la ni leen defal ma du ma métti parce que ba ma koy def dama ko def te yàlla tax comprendre du ma métti benn waay dana ma dërëm mën na ko naam. dama mus a ñëw ci moom ma ne ko man damay def lu baax rek mais lu bon rek lañ may fay mun ne ma lu baax daa wëri mbokkam saa bu dajalee ay mbokkam ba ñëw sa xol sedd guy waaye booy def lu bon di ci am lu baax jàppal na lu bon daa wëri mbokkam bis bu leen dajalee ba ñëw nga doyal sëkk. d'accord mais li li ma jaaxal li ma jaaxal mooy dañuy gis dërëm gaajo nekk par exemple cees am fa troupe ñu bokk di def ay affaire nga gis ko muy joué ak yeneen nawle ak am wala comédien am yu nekk yeneen bërëb ba Dakar ak yooyu noonu. Mm-hmm. léegi suñu leen gisee ngeen jaxasoo di joué nit ñi dañuy yaakaar ne ñii gëmante nañ ñii bëggante nañ. ah non xam nga gëmante mu dama lay jox benn affaire tey ñun ñëpp mun nañoo nekkandoo fii doon dix personnes kafre tàppante moor tàpp kii tàpp kii déggoo ñu ne bëñ weex na waaye dreeta ko lal ñu ne sa noon mooy ki lay ree yow mun naa doon xenoon doo ko xam de tàppanteeg yow siis ko kafre ñu tàppante fekk yow bu ma wéetee ray la wéete bu ma wéetee dama lay ray de looloo am Sénégal nag léegi léegi est-ce que mun ngaa xàmmee sa noon doy na waar de ah, munoo xàmmee sa noon sa noon moom munoo fexe ba xàmmee ko moo tax da ngay def lu baax rek te yàlla te xam ne moom yàlla rek la mun a muccal mais kii mooy sama noon wala ma sàmbaay sa noon munoo xam lool parce que sa noon mooy ki la gën a dugg mooy ki gën a mun a waxtaan ak yow mooy ki la gën a mun a topp mooy ki gën a mun a jëf ak yow lu baax. d'accord léegi léegi lan nga ñu mën a wax loo xam ne lii dërëm gaaju dund na ko mu metti dëggantaan maam nga préciser quoi ne lii moom jaar naa ci mu metti. si ko loolu dama koo mun a wàññeem. mais mayuñ ci benn rek pour ñi nga xam ne tey jii ñi ngi seetaan ñu mën a comprendre ni nit ki tëbu dara xëyul rek sotti il faut que nit ki aussi di muñ ngi jàngat ci àddina waaw non man lu ma waay man loolu mënu ma koo lim yow jarul lim maanaam lenn lu la métti rek mu leen lii moom dund nga ko mu naqari la nga demoon ba bëgg bàyyi wala bëgg xaadi bëgg bàyyi waaw loolu nag mus na ma mus na ma daal ci sama troupe la ma dalee mais damay bàyyi noonu sa troupe sa troupe ban waaw bi ma nekkoon Thiès mais loolu damay damay bàyyi noonu. ah non dërëm dañuy waxtaan. c'est-à-dire loolu ma musoon a métti lool ci sama troupe mais euh, dafa bokk ci liggéey bi maanaam sunu borom moo ne woon daa bokk ci sama jaar-jaar loolu. daa bokk ci sama jaar. waaw mais déedéet boo indee suñu borom rek day yomb quoi cest à dund nga lu la metti dund jafe-jafe boo xam ne tey. tax na nga dem ba bëgg bàyyi ba bëgg xaddi. waaw yàlla suñu borom moo moo dogal ne loolu waroon naa waroon naa cee jaar. bugguma expliquer parce que su ma expliquer day indi complication te yàlla moo ne ma woon lii waroon nga cee jaar loolu moom métti woon na ma lool. dañ la doon xeex sa biir troupe. non parce que nag bëri na euh, acteur comédien yoo xam ne ñemewuñ dërëm de. non waxuma dañ ma doon xeex de ba léegi waxuma dañ ma doon xeex dama ne am naa lu ma mus a métti te la ma am lu ma mus metti bokk na sama troupe laa ko amee te sunu borom moo ne woon jaar jaar la ci man dafa dama cee war a jaar jaar naa ci weesu naa ko jeex na. tey sunu borom defal na ma ca loolu ndam jox na ma ci ndam lu rëy jeex. xeex nañ la siis nañ la ba yàlla indiwaat dëgg. waxuma xeex nañ ma waxuma siis nañ ma ba léegi loolu it waxuma ko dama ne jaar am naa fa jaar jaar bu métti boo xamante ni demoon naa ba nar a bàyyi mais waxuma xeex la wala wala dañ ma doon siis ak wala dañ ma doon lii jaar jaar la daal jaar jaar bi moom mënuma koo wax. d'accord léegi dërëm noo gisee milieu bi ñu nekk nii production yu bari ku tëb rek jël sa caméra rek samp rek. xam nga teg sa benn histoire bind ba nit ñi dañ dem ba dañoo saturé dañoo xamante lan ngay seetaan weeru koor gi ñëw gën koo firnde nag sketch yi bari bari bari ba kenn mënul comprendre est-ce que loolu du rey milieu bi ngeen nekk. ah loo ci man yow mën nga ci dara. man man kay yéen laay wax yéen yéen les acteurs ah, comédiens. man mënuma ci dara. ndax nit doo ko fekk mu samp caméra am nga ne ko doo tourné nit doo ko fekk muy tourné séréem nga ne ko doo tourné comprendre ku nekk nekkal ca la nga nekk rek ku nekk nekkal ca la nga nekk waaye ku ne xam na ne soow lii soow lii soow piir lii mooy soow lii du du soowum piir ku ne xam na ko. loolu lu muy tekki. maanaam tey mas kii tourné kii tourné kii tourné bu ñu génnee dinañ xam bi baax ak bi bon. gis na ka gis nga ni am na ay production yoo xam ne moom baaxul xamante ni nii normalul ah loolu kay yow bu ma la ko waxut sax yow war nga ko am na production yoo xamante ni nii boo ko seetaanee da ngay xam ne lii normalul comme yan bëri na non damaa daay man dama koo mën a tudd yow Sénégal li fiy daw ci ay produits xam nga ñaata mais est-ce que tamit boo ko tuddee du leer pour ñu xam ne li ñuy def nii baaxul beneen yoon ñu góorgóorlu. boo ko boo ko tuddee boo ko tuddee moom du ko gisee ne yow yaa ngi koy yaa ngi koy yaa ngi koy dimbali da koy gisee ne yow yaa ngi koy xeex léegi léegi mu def ci plateau. dërëm gaajo yow li nga wax ñaaw na hein hein hein yekk lu nekk sànni ci net bi. mais kon est-ce que loolu du firnde liñ naan Sénégal c'est-à-dire bi dafa dese professionnel parce que tey jii ki nga xam ne dafa def lu bon nga woo nga critiquer ko wax ko dénoncer ko pour ëllëg mu def lu baax. est-ce que loolu tam jaarul muy am. sénégalais xamul lool. boo juumee ba def ko dootoo ko defar ilaa mi man de ku mu neex defal lu bon de sama yoon newut ci yow de man li may def moo ma intéresse. ku ku mën a taasal taasal ku mën a taasal taasal man li may man li may def moo ma intéressé. en tout cas man du ma taasal du ma def lu bon du ma def lu ñaaw li ma sama liggéey laaj dinaa ko def bu mu baax su ma paree jox ko Sénégalais leneen lu keneen def nag kooku yow la intéressé moom sama yoon ne ci. yow nga toog ci garab. waaw. garab bi am ay fruits. waaw ay nit jóge fële di yàq fruits yooyu nga ne yow sa yoon nekk te yow ngay lekkee ci fruits ci mais déggoo lu ma wax ma lekk ca la ma ca mën a lekk. baa bu yàggee dootoo am loo lekk. waaw boobu ma xooli leneen barke Serigne Touba su ma demee ba gisatuma lu ma xam ma dem xooli ji leneen te ñaanuma yàlla dee ci aar bi ñaan naa yàlla bientôt ma arrêté dem xooli ji leneen. da nga nar a bàyyi aar. waaw loolu kay bientôt. ci kàttun yàlla ak mbaaxam barke alxuraan mais waa Fekh TV loolu exclusivité la de exclusivité. bientôt dërëm nee na léegi mu bàyyi def comédie bi. ndax d'accord ngeen ci loolu yéen. bientôt. Hmm. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam lii ma mébét bëgg ko soxla ko ñaan ko sunu borom mu defal ma ko su ma ko defalee ma dem nekk ci loolu noppalu bàyyi aar bi. mën nañ xam loolu lum. déedéet man wax jigu ma man lu ma nit defal su ma ko waxee ñàkk ko lu ma nit defal su ma ko waxee ñàkk ko barki alxuraanu karim wax jigu sa diggante ak Fatou Kiné. waaw tey jii su fi toogoon ba jóge fi te waxuma ko peut-être nit ñi dinañ ma mere yow ak Fatou Kiné lan la. non ma ak Fatou Kiné dañu yàgg 2004 la ñu commencé ànd maak moom di jouer théâtre muy booy may booy yàlla def ñu xamante bu baax bokk millier bi bokk scène bi comprendre nga. Euh, mu mën a jouer ak man moom bu jàkkaarlook sama kanam déjà am na inspiration bu bu baax comprendre te lim may wax man la neex voilà taxawal. dañuy toog. ma ne ko saay mu ne naa ma ne ko loo mun a yokk ci sama kanam gi wax ci lu bon rek waxal. di doy looloo may may xaalis di man barki alxuraan looloo may may man loolu dérangé wu ma yow ñaata yoon la faat ki ne wax ci man lu garaaw ci sama kanam gi mu suma cee toog ba kaas. bu ko bawoon ma mere ko moog Ndey Njaay bu ñu bawoon ñoom di ma xas di ma wax wax joo xamante ni nit ñi dañ koo garaawal man boobaa nit ñi dootuñ ma xamati parce que ñoom ñaar gannaaw yàlla ñoom ñoo tax doomu aadama yi xam ma kon ñoom ca la ñu nekk ci sama kanam gii di ko wax ci sama jëmm ji yal na yokk yal na ko suñu borom yokk ci barke alxuraanu karim yàlla bu mu arrêté. luy gën a wax wax ju ñaaw di gën a wax sama kanam gi luñ ci mën nañ ci wax. ma ci sama xol di gën a sedd. ñoom it yàpp nañ sa kanam gi te pourtant yow boo goos nga de. waaw lu nu garaawul nanu wax ñoom ñaar daal nanu wax nanu wax lu leen neex may naa leen ko. billaahi. mais yow it saa saa nga jekku leen def. waaw lool la rek. jet leeg petit Bouddha. waaw <laughs> mooy lool. mais inspiration boobu fu mu jugee. te nii rek mu jékki-jékki ñëw ma wax ko jeex na waaw. naturellement. billaay. waaw naturellement. waaw parce que dama gis sénégalais yi dañuy dañuy dafa bëri lu ñuy soxla. seen seen trio boobu sax laay wax. dañ koo boo xoolee même ganu ganu yi ngay def. ak ñoom hmm. ñànku ñoom kaaw. da gis boo waree joué ak Fatou nit ñi dañ koy xaar. loo laa lay wax nag léegi buñ ko bawee fu ma jëm ah, bu nu bawee loolu fu ma jëm man saa bu may joué damay yàkkamti joué ñoom ñaar. waaw dama ko man dama koy yaakaar. parce que gis nañ complicité bu doy waar. bu ma génn ci Sénégal ñaari nit lañ may laaj Ndeye Ndiaye ki ne ana Ndeye Ndiaye ana Fatou Kiné waaw bu ñu gisee géetuma ak ñoom fu ma jëm kuñ may laaj man duñ ma laaj kenn de Ndeye Ndiaye Fatou Kiné wala bu ma génn ñu ne Fatou Kiné ngi ñëw de dawal yooyoo may neex man yooyoo may neex moo tax ñoom fi ñu ne yàlla bu nu ko wàcc. maanaam dërëm gaajo du acteur wala artiste comédien boo xam ni yëg na succès daal. non ki ñàkk laa gën a mun a defal ki am ki ñàkk laa gën a mun a seeti ku am ki ñàkk laa gën a mun a may diri kaas ki am. ki ñàkk moom ma gën a mun a taxawloo ki am barki Mouhamed. d' accord bu ñu jógee foofu ñu dugg directement sa diggante ak sëñ Medoune Seye boroom tawféex. waaw kooku moom ku ne xam na li ma doon ci moom lu ma waxaat ci moom répétition la ku bëgg a xam kooku li mu doon ci moom koy demal nga tàppe dërëm gaaju mu boroom tawféex ñu génn la li mu wax wax naa ci moom ba sonn wax naa waxa waxa waxa waxa waxa wax ci tawféex ba sonn defal na ma lu ne lu ma wax rek loolu laay waxal defal na ma lu ne defal na ma lii may na ma lii may na ma laa mooy sama sëriñ mooy sama yaakaar maa ngi moom ba yowmal xiyaam te li ma lay wax dama ne képp kuy xaar sama digganteeg moom am taas taas wala wax ju bon am ci ku koy xaar ku ne yaa ngi xaar loo dul gis ci sa àddina te yàlla bu ma nit jaxaseek moom léegi ñaan googu laay ñaan yàlla bu ma nit jaxaseeg moom yàlla bu kenn euh, yàq sama digganteek moom yàlla bu ko kenn wax ci man lu bon ba mu gëm ko parce que benn kilifa dana ma yaa ngi ci lu métti ma ne ko lan mu ne ma yaa ngi bëgg nit dafa mbétt ma ne ko lu tax mu ne ma lu doon lañ lay waxal ci moom ngir yàq sa digganteeg moom mu ne ma xaaral lu nekk dinañ ko ko wax ci lu bon ngir sa digganteeg moom yàqu mu ne ma ci lu métti nga ne mais gëmal li nga gëm rek. d' accord gëmal li nga gëm. Euh, dërëm Gaajo jàng na école. mukk xaw ma boo baamu école sax nu mu mel xaw ma man. ay tey jii nii su ma buggoon ñu wax tuuti français nu muy demee. fii ba de. barki borom Touba fii laa ba boo buggoon ñu wax ci français. fii laa lay ba dem tëdd ci lal bi fii baalaat tubaab yi. kon dërëm yow hymne national Sénégal mënoo ko. dama ko dul jéem sax dama kaa jéemut. doo sénégalais yow. Eh? ah kay. léegi restel national bu Sénégal. mënuma ko daal alxuraan rek. man daal boo may laaj daal laaj ma ci alxuraan alxuraan daal jàng naa ko moom. lan nga mën a baaxee waa feex TV kon. ci weeru koor gi ci alxuraan nga may ñu tuuti ñu mën a xam tamit nekk comédien bi du kii sol caaya rek taxaw rek rey kërën kërën affaire yooyu noonu. waaw xam nga alxuraan moom loo ci wax lu nekk rek baax na. comme ñoo ngi ci laylatul xadri di baaxee gaay rek inaa anjalnaahu fii laylatil xadri wa ma adraka ma laylatul xadri laylatul xadri xayrun min alfi jahri tanajalul malaikatu wa ruuxu fiiha bi izni rabbihim min kulli amrihim salaamun hiya xata matlixil fajri ñaan goog moom ñaan gu baax la wa in yakaadu it ñaan gu baax la alxuraan daal ñaan gu loo ci wax rek baax na waaw loo ca man daal ku ma laaj ci alxuraan moo wax mais kuma laaj ci mbirum tubaab dag may sonal rek fi laa lay ba dem sama yoon. waaw gis ni tamit mbirum uh, xasida Serigne Touba am na lu ci yàlla may. waaw xasida dama daan jàngkatu xasida laa woon bi ma nekkee daara. Ah jàng naa ko fukki at kuréel naa fu ne ci àddina waaw moo tax paren saay yow yaa ma njëkk a def loo lool ci laa la doon waxee kunkaati man li durri wal bu saatanan xasdan wa taxlul ji la yaa mutaallimu di wax di wax di wax di wax. di eggali ko parce que loolu nit ñi dañ ko bëgg si yow. laa tuksiri shakwa fakun mutajallidan hatta tajuna naasa annakum mulim fal hilmu laa yuxtaa liman ixsaata waa bal rabbuna abdan suborani na ko gaay dem yëri ji rek téere yaa ngi fi. waaw day guddal émission bi rek. <laughs> saa mais lii neex na neex na waa mais émission bi daanaka jeex na. léegi yow Dërëm Gaajo lan lay tàggu. sant yàlla julli ci yonent bi di sant samay fans si ko ñu bàyyi ñuy sant suñu fans yi. comme sunu fan sii ñoo ñuy defal ah di sant Cheikh Lo sama xaritu bopp sama nitu bopp barki Seydouna Mohamed di ñaan yàlla yàlla guddal fanam wéral cëram teraanga junne defal na ma ko loo yéene bi mu am ci man yal na ko sunu borom mottali di sant it président Modou Gueye muy président ASC Pikine di maire ji de Caaroy Kaw di nit ku baax mësuma koo dégg mësuma koo gis nit ñi nag foog nañ na defal na ma lu nekk ci àdduna mais sama benn xarit moo ne ma nit ku baax la te moo ngi jàppale néew di doole yi. dëgg loolu moom xam naa si dara nit ku mën def teraanga. man nag nit booy jàppale néew di doole yi rek yaay sama xarit moo tax président moom a Gueye maa ngi koy ñaanal social bi nga xamante ni mu ngi ci yal na yal na continuer yàlla bu mu ko daggal dakkal ci barki alxuraanu karim nit ku baax la di sant nag ki ma sañseel muy Fawcene Marème. Euh, faction Marème baay nekk ca Europe moom gis nga jàllaa bi màkkatal mu karam la jóge ndeysaan di sama xarit di sama doomu ndey di sama lépp axma axma ah Galaxy Shop Mor axma Galaxy Shop borom fi kii pare dina jaar service commercial de yow boo paree moom balla balla balla dërëm bu paree mu jaara ah. balla la <laughs> man fii lu ma neexlaa laa fi jàll nga naa la déggoo li ma wax fii lu ma ku ko dagg barki Serigne Touba dootoo ma gisati Fekh TV na ko sëñ bi dégg dama ne Axma Galaxy Shop borom frigo yu baax yeeg climatiseur yu baax yeeg tele yu baax yi. di sama xarit dig ma lu rëy. Axma. xanaa booy dem ñooy ànd. HLM Grand la ne. dem leen ngeen seeti ko ay matériel am moom laa illaa Axma yàlla na yàlla guddal sa fan di ziare Assane mi ma booleek moom ak Lamine Samba. sama nit sama xarit Lamine maa ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam wéral cëram nit ku baax la nit ku ma bëgg la. Lamine di exemple bu ñu war a roy macha allah. bii lu ma neex laa fi publicité di xaar ma sàmba dagg ko ba génn ko ma démissionné. ah waaw yow ñun suñu nit ñu baax lañu am yow di wax ci ñoom lu baax ñu ñuy defal ay teraanga comme état jàppale wu ñu nañu suñuy nit ñu baax jàppale di sant Baara Ndiaye ca Espagne. ñoo baax loo pareegu pareeguma ñoom bandaloo ñoo ngi ca Espagne ñooñ samay nit lañ samay xarit lañ di waaw bàyyiwuma kenn ku dégg ku déggul ñoom ma dikke Tafa Kebe borom Torino borom pulaayu sopp Serigne Fallou yu baax yi waaw ñooñu samay ñoo ñoo may ñooñu ñooñu ñoo may defal teraanga duma leen tudd waaw di tëjee borom taw féex ki nga xamante mooy xalifa bi laay laay la laa xale waa jàngoog mm-hmm. li sàcc bi di wañ waa jàngoog kookooy lépp nag kooku nag moom moom moom moo leen wër moom. plafond waaw kookooy plafond moom moom moom moo moo moo tëj bunt bi damm caabi ji sànni géeju Malibu bi yal na yàlla def jàmm ci Fekh TV projet yaa ngi ñëw na ko ñëpp xaar sketch yi série yi bàyyiwuñu dara di sant moor mi ne ci caméra bi di nit ku baax maa ngi koy sant di ko gërëm di xale bu yaru xale bu nangu maa ngi koy sant di ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm di la sant Cisco. di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm may ñu xaalis may ñu ay millions may ñu ay oto yu rafet ñuy dawal bañ di gaare ay taxi di upp ay taxi di dugg ci ay tataayal nunu yàlla defal loolu may ñu ay kër yu rafet ci barki borom taw féex yal na yàlla def jàmm ci réew mi euh, ñi ma tudd seen tur dégg ngeen seen tur gaaw leen wasalaam. l'appel du pied vraiment <laughs> l'utile et l'agréable mu wax dëgg nag ay vérité yu leer waaw parce que euh, ñoom. public bi internautes yi ñoom ñooy seen doole donc bu ñu toog te duñu leen tudd quoi émission baa ngi nii nag jeex na man aussi xam nga rek ma bëggee tuuti samay nit yi nga xam ne ñi ngi euh, un peu partout xam nga di ma di ma di ma di ma conseiller hmm, di ma féliciter leen wax rek na ngeen dolli ñaan hmm, di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ni voilà lamin borom Paris hmm, maa ngi lay bëggee Jacques yow tamit fàttewu ma la kon sama gars rendez-vous très bientôt di bëggee moor mi ngi dee fii mais grawul lépp ci la bokk rek am <laughs> ah, out <laughs> kenn du moom de bul dagg dara moor dugalal Fekh TV waaw dugal ko Fekh TV ñoo ñoo ñuy dimbali waaw ñun état dimbali wuñu ñoo ñoo ñuy dimbali ñoo ñooy suñu nit waaw dugalal lépp wasalaam wasalaam